baabun li ab bunt la fil fitrati ci jikko di wax jikko di ko wax bind bu rafet maanaam nag fi dañ cee jublu jikko yi nga xam ne nit da koy def ngir moppalikoo ko maanaam ngir nekk nit ku mat ci yelloog ni nga xam ne moom lañ si war a mel daal moom la ñu bëgg a tudd fii ay mbir yoo xam ne na tax ni yàlla bindee jëmm ji muy bind bu sell mat nga xam ne kii sàmm na ni ko yàlla bindee yooyu lay wax ci bunt bi wal xitaani ak làkku di wax làkku rek waaye mooy xaraf wa xalqi shahari wa xalqi shahari ak wat kawar wal libaasi ak koddaay wa satril xawrati ak suturaal xawra wa baax la nga xam ne yet tastu dana jokk bi daal yi ko ci loolam bunt bi daal yooyu la fi bëgg a wax wa minal fitrati bokk na ci jikko xanaa bokk na ci li tax ñu la yàlla bindee te muy bind bu rafet feeñ xam suñ juróom ba ci njëkk mooy xasu shaari bi jëmp ay naanu waxoo moom charib al itaaru mooy itaar itaar noonu dara rek noonu itaar mel ne kaadar xam nga ne boo seetloo ay naanu muy waxee mustaas di wërtuñu moo tax atax mu naa waxoo moom tarafu shahari mooy cati kawar nga al mustadiiri day ajiwandeelu xaal shafati ca tuñ ma laa ih faa uhu du ca yoon ak faagaagalam faagaagalam mooy wër koom si wecc dafa wax ni bokk na ci yël yi tax sa bind bu rafet bi yàlla bind feeñ boo amee ay mustaas nga jàmb ko ba catituñu di feeñ te bañ ko war ba mu seen wecc nga xam ne kon danga koy sañ a jàmb waaye doo ko sañ a wat ba mu seen wecc moo ko sikkim dañuy wax ne wat leen moom set araam nañu am na sax ku doon jéem a boole wat yu araam yëpp yu ci des ate daal mbuum kawar bay wax naa fa xalqu lixiyatin wa shaaribin xaraam ta'dibu man yafhamuhu xalal imaam li tax na mu tekki wallahu yàlla aalam moo xam dëgg-dëgg dafa am ñaari addis yoo xam ne bee dane xussoo ashawaari ba maanaam jëmp leen mustaas yi beene yonent bi daa waxam ne axfoo ashawaari ba wa aafoo alliha maanaam ñu ngeen wat mustaas yi ba mu si wëcc muy faagaagal bi ci sikki bi nag moom ngeen loolu ko muy loo di gudd ah loolu nag ñaari addis ñaari addis yoo xam nga ne kon dañoo xaw a mel ne ñu xaw a wute Maalik moom daa jàpp ci bu njëkk bi wax ne xusso ashawaari ba xam na nga koy jàmp ba catituñ yi feeñ te bañ ko ba mu set waaye Shaafi Abu Hanifa moom dañoo jàpp ci ba wax na nga koy bañ ko war ba mu set mais axfo ashawaari ba moo tax nag borom téere bi indi wallaahu axlam ndax wute gi am foofu moo tax mu ne yàlla nag moo xam ne dëgg wa qasul adfaari ak looy ay we kooku mooy ñaareel bi looy ay we bokk na ci tax bind bi rafet bi la yàlla bind feeñ waaye moom bëgguñu koo bàyyi muy gudd diwee rek wa nat ful janaax yi ni ak xus ñaari poqtaan maanaam poqtaan yi kawar bi ci sax nga xus ko mu dañ loolu itam taamu nañ ko xus gi nag lañ gën a taamu ci wat gi xam naa bu fekkee xus gi day metti mu war rek waaye daal xus gi moom lañ gën a taamu waxal xul xaanati ak wat ab naq kooku bokk na ci jikkoy rafet yi mooy bu fekkee naqam sax na kawar kawar googu mu wat ko bu ko mënee dindee ci loo xam ne koy da ko ci def rek mu daal koy dindee mu setit ba tey loolu baax na wala ba as awit bi xilaaqi wariha ci wat lu dul yooyu min shaharil jasadi ci kawaru yaram wi nee na bala kawar saxee feneen mel na ci say loxo mbaa ci say tànk mooy feneen ci say yaram ba tey bala neexee wat ko wat ga ayut wal xitaamu làkku te mooy xaraf li rijaal li ñel góor ña sunnatu sunna la wal kifaabu tondiku li nisaay ñeel jigéen ña makrumatun teraanga la maanaam li ñuy wax xaraf sunna la lool ci góor bëgg nañ ko lool waaye dañoo wax ne bu demee ba magum jëmm nag te fekk xaraful nag kon moom mooy xaraful bopp waaye kenn du ko mën a xaraful ndax xool awraam day doon lu araam te gis nga ne xaraf gi ci bopp mu sunna la kon nag bëgg a def sunna du tax lu toggoo bu araam te defee jigéen tam loolu xawam du xaraf ci moom mooy li nga xam ne mooy nekk ci sowukaayam ci bu dee ci ñenn ñi bokk fekkee du ñëpp itam te nuru xiru ganaar nga defee ñu dindi ko te dindi ko ba ñëpp loolu lañu tuddee tonni ko moom it sopp nañ ko wa amara digle woon na annabi yonante bi an tuufa bu dee fi lool ak lixiyatu sikkim ba watu wax farate def ko lool wala tu xassate def ko jàpp yonante bi dim digle woon na mooy sikkim boobu ñu bàyyi ko muy dund rek di loo di wéy rek loolu lañ la waxoon sax ci addis bi nga gisoon léegi bi nga déggoon léegi xaala wax ne maalikun maalik ne wala baas awit bil axfi ci jàpp ba min toolihaa ci guddaayam ba isa taalat dem gudd na kafiran lool wa qaala wax na ko it xeyru waahidin ku dul kenn min asaxaabati ci saxaaba yi wa taabihiina ak way topp saxaaba yi Maalik mu nee na bu fekkee sa sikkim bi daal tool na noo xam ne moom ëpp ëpp na lool sikkimi nit ñi nit ñi daal toll sikkim daal yow sa bopp bi ëpp na ko lool kon nee na muy ci guddaay ba muy ci yaatuwaay ba mën nga ko wàññi ba mu yem da nga ko wàññi muy guddaay ba muy yaatuwaay ba daal ba mu yem ba ba mu jekk rek yem ak sikkim nit ñi te moom na mu toll daa jaabuli ko loolu nag maa wax na ko ñu bari ñeneen te wax nañ ko ci ñu baax ñu ci des wa yukrahu def na si si baaxu shahri suub kawar bi sawaaji ci lu ñuul min xëyri taxrimin ci lu dul araamal maanaam sa kawar nag nga mel na ngaa bijaaw daal koy suub nag ndax mu ñuul loolu bu fekkee jéemoo ci ndax kenn mel ne moom daa bijaaw bëgg a takk jigéen tax mu daal suub boppam kawaram ñuul ndaxoon ko ne ko mën waxal baane laa loolu bu ko defee mu araam ndax ma ngay ware su fekkee dafa bijaaw mu ñuulal boppam nag ndax bëgg dem ci xare ba bu ko yëfal seeni daw jàpp ne moom mi waxambaane la bañ a bañ a jàpp ne màggal la kooku moom tubaab la ca yam kon daa jàppal ne ñuulal sa bopp moom si dong la ci la yem bu fekkee ne li leen li leen raxu ca ba araamal ko mbaa li leen raxu ca ba sopp ko mu lu am tuyaaba wala ba sa awut nag bisee ci suub kawar gi bil xinnaay ci fuddan wala katami ak turumbal turumbal ay xob la yoo xam ne buñ ko defee ci kawar gi day tax mu puur day day puur ne moom sax du ko ñuulal fuddan noo mu da koy xongal loolu nag moom nee na ayut moom mënees na ko dara nekku ci wa naha tere woon ar rasul yonente bi alayhi salaam ak jëkkoor a góor ñi xan libaasil xariiri walis sol sooy wa taxat tamit dafa bi ak jaaru woowu rus dafa wax ne yonente bi aaye woon na te aaye ak araamal la ndax dafa tere woon yaar yëpp ne lii de sama borom araamal na ko ci ñu ay góor ci sama xeel yi ñu nekk ay góor ci sama xeel yi wurus mi ak soow mi araam na ci ñoom loolu moo tax yooyu yaar moom lu araam la soow moom nag moom wax suwaa suwaa moom nag dafa bari léegi waxa nit taxatu ni ak walis jaaroo bil xadidis weñ bu ñuul maanaam jaaroo weñ bu ñuul wala përëm wala xànjar lu mel ne beteex kon dañ koo sib moom doonte jigéen la wala ngóor la it utub jaaru ci yooyu moom dañ koo sib wala ba sa ayit bi fiddati ci jaaro ba fii xilyatin xaatami ah wala ba sa ayit wala ba sa ayit bil fiddati ci xaalis ba fii xilyatin xaatami ci takkaayal jaaro ba wa sayfi ak jeesi wala mushafi akub kaamil waaw nee nag moom mënees naa wut ab jaaro boo xam ne nekk jaarub xaalis waaye itam dañuy sart muy benn ñu nangu mu limu mu ne sol ñaari jaaro mbaa ñett des ko nangu benn rek nga sañ a takk kon mën ngaa wut benn jaaro te muy wut xaalis jigéen moom yëpp boo wul sa xa wul sa xaalis yëpp la ko mën boo góor na moom ci xaalis rek la koy mën ba tey boo amee sa jaay si mën nga koo xoobe wurus mbaa xaalis yaar yëpp lay mën boo amee kaamil jar wa nga xam ne moo ko ëmb ca kaw moom itam mën nga koo xoobe wurus mbaa xaalis wala wu xal waaye deful def daalika loolee fii li jaamin ci laab wala sarajin bi caageenu teg wala sikkiinam bi caageenu paaka wala fi nga xam ne daalika bi caageenu ci mujum lool waaye nee na sa laabu fas wala sa teg wala sa paaka mbaa leneen ci sa yëf sañoo ko xoobe wurus mbaa xaalis boo ko defee lu aram lay doon waaye taxattamu dana sañ a jaaroo annisaawu jigéen ña bu bexe bi ci wurus jigéen moom su borom ci ni ko islam jàppee day ko manqué koo xam ne mboolem yi ñu takkaayoo mën na koo takkaayoo ndax mottali koo ko door nag moom am na yeneen yitte yu bokk te waaj moo tax jigéen moom mën naa jaaroo wurus mën na caa am lépp lu ñu takkaayoo ci wurus mbaa xaalis rek boo doonte ay daal la sax mën na ko caa sol lal mi nga xam ne kenn ko sol nag moom suñ taamu lalu wurus moom wala taabal wurus moom sañu ko sañu ko am ndax yooyu du luñ cee sol lu ñu sol rek waaye lu ñu sol lu ne moom jigéen mën na ko am ci wurus ak xaalis moom mooy yow tereef na xanit taxatuma walis jaaroo bil xalidi ci weñ bu ñuul li tax mu wax loolu nag mooy dalay wan ne la jaaroo weñ bu ñuul moom wala përëm wala xànjar moom taxul teel ñu sib ko ci jigéen ni ñu ko sibee ci góor moom ñu ko sibee ci jigéen moom dañ ko sib naka ja ak man doon moom wala ixtiwaaru tànn ga mim maa ci la nga xam ne réew yi nett leef na ko fi taxatuma ci jaaroo ba ak taxatuma mooy jaaroo fi yasaari ci càmmoñ ba li ànd tanaawula chey ngir naka wéetu dara bi yow mi nekk na ci ndeyjoor wax fooy moom yaa ak zuhoo da koy jëlee bi yaminihi ci ndeyjooram waaye ci xaluhu tam koy def fi yasaarihi ci càmmoñam dafa wax li ñu gën a tàmm nag mooy boo xasee ba amam jaaro te nga sañ koo sol nga sol ko ci sa loxob càmmoñ ca baaraamu sonkaleñ ba loxoom ndeyjoor moom ndegam lu nga yootu ci nga ko yootoo kon am na bu liggéey kon nag loxo càmmoñ ba nga xam ne moom li ci ëpp moo gën a ñàkk bu liggéey say boo def ci jaaro ba te moo tam sopp nga def ko ci baaraamu sangaleñ ba ñu bari na dañ ko def ci baaraam bu sës ci baaraamu sangaleñ ba ñu fàttali foofu ne góor benn jaar rek lañ ko may bopp xaalis te it am na tolluwaay buñ ci wax mooy mu ëpp ñaari dërëmi yoon ñaari dërëmi yoon nag boo ko dee seet daa mel ne ba tey matut juróom-ñaari ngaraam waaw ba tey daa mel ne xaw naa manqué ñaari xaw naa manqué juróom-ñaari ngaraam kon loolu ñu seetluwaale ko ci waxtu dafa wuteef na fii li baasil xas si ci colu xas xas mooy loo xam ne maanaam garay ga garay ga dafa doon sooy xam nga sooy lu aay la fàllee la doon wateen mbaa loo xam ne ayut wateen mbaa leen wala yooyu kooku nag fa uj sa daga na leef na ko wa kurihati si beef ko maanaam ñenn ñi wax ne dagam daa jaxasoo la nekk lu aay la nekk lu ayut sib nañ ko ñenn déedéet sibeesu ko waaye wax ji gën a wóor rek mooy sib ga ñee dañ koo daganal ñàkk koo sib ñee sib ko waaye jàppal sib gi ne loolu sib la وكذلك نكلون الحلم ردوا في الثوب جملان من الحرير تشوي إلى الخط بر ردوا الرقيق الإجسيو manam bo won rabbu tay absir wala xamne dañ ko ayé waye la nga ci waxto ne baram mba mo ko niki mat ñenti baram waaw li lay ci li mat ben baram dal mba lu tol ni ñenti baram rabbal nga ci soy lol mom wax ji gëna wër soy bo japp ko mooy daa wax ne wute nañ ci waaye wax ji gën a wóor rek mooy sib ga bu fekkee ne rëbb bi sooy nag moom yeetuwul ni sax baaraam bu fekkee la nga ca def ci sooy mu yeetuwul ni sax baaraam waaw su boobaa moom dana dagan di su ko sib basu du sañ a sol an nisaaw jigéen ña mën a rëq ci aji siw maa loo xam ne yasifuhun na dañ leen melal dama xaraju na ndéem génn nañu dafa wax ne jigéen lu sañ a sol yooyu weef yoo xam ne yaram sax day feeñ xam ne boo xoolee jëmmi chéri rek di seen yaramu ci biir wala boog da koo dangal ba nga xam ne na tay cëram da koo sol dafa da ko nat tay la sa waaye da koo dangal ba nga xam ne day natt cër yi loolu itam ko sañ a sol loolu daa wax ne buñ génnee waaye loolu buñ toogee itam noonu buñ toogee foo xam ne kañ toogal sante gis seen yaram nekk du seen jëkkër ba tey loolu noonu la mel doo sañ a sol mel noonu ba tey loolu noonu la mel doo sañ a sol mel noonu buñ toogee seen jëkkër nag moom ñaar ñi seen moom ku ne mën naa xool yaramu moroomam ba sañ naa xool sax awraam loolu wax ci jigéen tam góor noonu mel góor li nga xam ne mooy awraam suñu caa sol weef weef ba nga xam ne ku ne jàpp di seen awraam ndax loolu xam nga ne sañeesu ko waaw maanaam góor moom itam kon bu fekkee day génn wala mu toog toog koo xam ne seen tuxal awraam wala foo xam ne kenn mën na ko faa fekk moom it daa war a sol loo xam ne day pal ba noppi sàng awra ja waaye du sañ a sol weef loo xam ne awra ja day feeñ buñ dara si itam mu sol loo xam ne day dang ba natt cëri ni kii bu dee pantalon boo xam ne daa dang ba natt cëri moom daañu ko sipp wala ya jëru bu diri arrobulu waaji isaaraxoo tubayam batara ngir réeru wala tawbaxoo du caageenu malaanam mënal ko yàlla ay mbir pokkarewu waaw maanaam góor sañuta sol yére yoo xam ne guddagul bopp te jëlu ci lu may rek pukkare wane wane ne moom ay yére yomb na ko ay yére jàppandi na ko bu dee jigéen tam ay boobu mën naa gudd ba boobu waaye nag ndax lañ bëgg yaram wu sangu waaye bu bu boobu depp waaw naa jot bu baax nag bu dee jigéen moom mu nekkoon na nekk rek ilal kaaba ni jëm ci ñaari bayar ya foofu moom am jafe moo gën a set li taw bi xëy ñeel malaanam wa at xaate moo gën a ragal li rabbi xëy ñeel boromam anaam góor daal li ci gën mooy yére mu sol ñëw ba ñëw ba agsi ci dëgër dëgër rek yam ci ndax loolu mooy tax du gaaw a taq te it moo gën a tegtal ragal yàlla moo gën a wane ak woyof lu moo tax kon loolu na ci woon xaa def na tere xanis ci maali sammaay walis làmbaayoo làmbaay gu tax wala yett fekk na moom xalaa xëyri saybin nekk na ci lu malaan maanaam bu fekkee ne day julli nee nañu làmbaay gi mu wax mu làmbaayoo ko day araam bu fekkee ne julli wut ñu sib ko làmbaay boobu nag nuñ koy defee mooy yarfaxu day yëkkati zalika loolee min jihatin ci wàll waaxidatin guy génn wa yasduhu te muy woor al uxra ga ca des nee na ni ñu ko daan defee nag mooy te mbalaan mi nga xam ne moom la làmbaayoo da koy teg ci menn mbagg mi bàyyi menn mbagg mi nga des mbalaan ma yooru ja nga xam ne bu yëkkatee loxo ba rek xëy na awra ja feeñ waaye moom loolu mel ne du suñu mbir dafa am ñu ko daan làmbaayoo noo xam ne daal dañuy yëkkati genn wet gi wàcce genn wet gi moom làmbaay gi ci loo xam ne nag bu yëkkatee loxo ba awra ja feeñ loolu nag bu fekkee ne fekkul mu jiitloo dara waaw su boobaa ñëpp maasee ci lay araam ndax bañ awra ja feeñ bu fekkee jiitlu na leneen nag boobaa ñu sib ko rek moo tax mu naa wa zalika loola isa lam yekkul mooy dem nekkul tax tastimaalika ca ron sag làmbaay sawbun mel ni malaan bu fekkee ne jiitloo dara moom rek nga def noonu kon nee nañ bu dee ci julli day araam bu dee julli julli ñu sib ko waxtu bi fa wóoteef na nag fii ci moom xalaat sawbun bu nekkee ci kaw malaan maanaam bu fekkee malaan jiitu na ko nag ba tey moom la ñu wax araam li moom la ñu wax sib gi waaye sib gi nag lañ gën a ànd bu fekkee ne malaan jiitu na ko waaw ndax xam nga bu ko malaan jiitoo woon xam ne ne kon léegi awra bi du feeñ waaye dañu wax ne nag ba tey bu ko julliwaale ñu sib ko ndax ndegam kon menn mbagg li day feeñ dañ ko yemale julli te ay mbaggam dara nekku ci la nga weesoon ci gannaaw ne daañu sib mu jullee malaan moo xam ne lay saxala ak taafi yi mën wasi woon day mel ne loola moo ñëwaat looloo tax ñu sib ko kon rek da ngay jàpp ne xeetu làmbaay yooyu daal bu fekkee ne jiitloo na leneen waaw ñu si ko rek yem ci bu fekkee jiitloowul dara nag mu nopp làmbaay yooyu noonu nag mu araam loolu daal moo gën a wér wala umaru def na ko digal moom bu kàllafu mel ni doon bi satral xawrati ci suturaal awra maanaam moom mu kàllaf mu ne bu fekkee day julli wala yéetut nga xam ne kenn mën na koo gis ab jaabur mën na koo gis kon day araam ci moom mu bañ a sàng awraam moom day julli mbaa foo xam ne kenn mën na koo gis ku ko war ko gis bu fekkee julliwul nag te wéet moom dong nag ñu sopp mu sàng awra ji ndax rusu yàlla ak malaaka yi nekkee borom moom dong ci néegam te julliwut dañu sopp rek sàngi awra ji bu toogee kawisee kawisee nit nga xam ne ku ci ne mën naa xool moroom it dañu sopp rek sàngi awra yi wa uftatul mu'mini tubaju aji gëm ilaa an saafi saaqa yi jëm ci xaaji yaari yeelam waaw nee na ku gëm yàlla moom tubaj jamu sol bu mu ko guddal ba mu nekk di buubu baa mu yoosu fa yeel ya xaaji li gën daal mooy mu yemale ko rek maanaam sopp nañ daal bari sol tubay moom mu gëm yàlla xam ne ëllëg dina ñëw mu dañoo puukare wu te yemale tubay yi fa yeel ya xaaji rek bañ a gudd wala sax yi lépp ba xawratan xawra la wala sakkal xawrati di mu nekk xawra ba nag nafsiha jëmi boppam léegi lépp bi dañ ko boole ci awra ji nga xam ne awra la waaye nag daa woyof nga xam ne bu mu fa doon daal nga sàng ko sàng gi moo doon bañ koo sàng waaye taxul nag mu àgg ci araam moom dem na sax ba nga xam ne da doon jël yëpp yu fee yëpp yu feeñ itam mel na ne lu tax ñu dugal ko ba baamu ko te la moom góor la. waaye nag sàng daal moo gën moo tax mu ne meloon na jëmmi awra ji ci boppam na mel ne mel ne bunt suufee bunt sawkaay bi mooy awra ji mag ji moom walaaye doxlu gi dugg arrajulu waa ji alxamaama baytu xamaam baytu xamaam ab ab sangukaay la daaloon boo xam ne ci jamono yu njëkk ya day am koo xam ne moo fay nekk boo ñëwee moo lay sang am loo toog ba ñaq dañ koy tàngal xam ne boo toogee day ñaq ba gajof mu ko wax mu daal lay sang loolu way taxam na amaan na yawoon illaa bi mu isarin ndare mu ànd ak tubéy maanaam góor bu ca dee dem day solaale tubéy joo xam ne faaw day sàng awraam te ki koy sang itam léegi bañ a laal awraam maanaam bañ a laal loxoom ci awraam sang ko rek loolu li ci des te bañ a laal awraam wala te doxul mu dugg dugg almaratu jigéen illaa may xillati ndara ngir sabab jigéen moom dañ koy aaye dem ci sangukaay yu mel noonu am na ñu ne daa araam am na ñu ne sib la waaw daal di wax ne moom sax maanaam am na lu mu woddoo lu doy war a dëgër diggante jëmm xam ak bëtt yooyu moom jigéen ji lu teemu araam am na nag déedéet bu ànd ak lu mel noonu dañ koy sib rek yem ci sabab seen wax nag moom la misaale kamaradin aw nifaasin na mu fekkee dafa amee jàngoro wala mu amee wasin moom jigéen ji laa ko tax a dem ca bay taxamaam boobee loola kon baax na daa mel nag nam daa mel rek nga xam ne moom sutura dafay jafe te ñëpp dafay tase te it gis nga ne am na ku fa ko xam ne moom moo fay toog di sangee yu demee noonu daal mel ne tax na jigéen moom dañ ko aaye bu te metti mu dafa dem ba jëkkër di ko fa yóbbu buur rek moo fay moo fay dem ci yooyu jamono ci ni ñu ko waxee te buur gi day aajoo mu sàmm bu baax a baax li tàmbali jumba xam ba ci bëti woon ba tëgg yooyu bu ñu ko fàtte na ko def bañ rek awraam feeñ baa ka koy sama gis awraam walla it laa saq du doon war a julaani ñaari buur walla mu ataan di caagee ñaari jigéen fii li xaafin ci mbàjj waaye du muy menn maanaam mu ñaari góor mu ñaari jigéen ku ne def yaram neen seen yaram di jom seen seen ñaari awra yu jonjoo ñu sàngoo rek benn mbalaan moo xam mbàjj la moo xam ubsil la ñu bàyyi seen yaram yu jonjoo di laalante loolu moom dafa araam moom it moom dañ ko waaye moo xam ñaari góor lañu moo xam ñaari jigéen lañu dama taxaru bu du génn indi atum jigéen illaa mustatiratan ndaw mbir muy aju suturlu fii maa ci la nga xam ne it laa budd mënta ñàkk laxaa ñeel ko mën ci moom min shuhuudi mawti abooyihaa ci teewe deexuk ñaari waajuram aw fi xaraabatihaa wala boromu jege ñaaleem aw na fi zalika wala lu roog loolee mu màcc la nga xam ne lu baax def na ko daganal la xàññeel ko jigéen nag moom ak génnam dañ koo xaw a dangal lool dañ koy def ñetti xaaj màgg mu jigéen mi nga xam ne kenn xoolut ko kenn soxlaatu ko moom mën naa génn ayewuñ ko génn mu des nag ki nga xam ne jigéen la te ndaw la kooku nag bu fekkee ne am na nu waaje wala am na taar boo xam ne su génnee xëy na kenn mën na ci am fitna su boobaa dañ koy aaye moom a génn mut loxo ne di wax ne ko doo sañ a génn ki nga xam ne ndaw la waaye nag moom amul taar mbaa waajut nga xam ne moom kenn rëgalu ci moom fitna kooku mën naa génn ci mu mënta ñàkk loo xam ne moom jaaru na mu génn ci mel ne lee mu wax ndaw mu bàyyam bu ci kenn faatoo wala mbokkam moo xam ne war na ko tax war a génn wala lu mel ne mbokkam di seetal wala mu bëgg a siyaare ji day ma bàyyam wala faj soxla soo xam ne amul kenn koo ko fajal yooyu yëpp daal mën naa génn waaye dañuy sart bu dee génn day solu col goo xam ne mat sëkk nga xam ne dara ci yaram wu du feeñ du feeñ ba noppi tam du waaj sol yëre waaj ba noppi du xeeñoo xet gu neex waaw daal lañ koy dangal lool wala tax duru sañ a teew min daalika ci loolee maa loo xam ne fii nekk na ci moom nawxu naa ihatin déjeetu aji déjeetu aw lëhu aw lëhoon wala po min musmarin ci toxura aw xóot ni wala bantub xalam aw sib yi wala niroog moom dama malaax yi ci xeetu fayukaay yi al mun xiyat yi aju foloo te nee na kat lee mu wax sax ci faatuk ndeyam ak bàyyam mbaa mbokkam wala ci yëpp gee mu wax sax mel ni mbokkam di seetal mbaa yu demee noonu sax kat nee na balaa dem dañuy seet ba xam ndax loolu luñ fay def lu aay tam fesal bu am na fa am déet lu wóoree ne am na ñu fay dajaloo di jooy xeetu defin woo xam islam aay na ko muy déjeeti kooku ki daganoo di jooy ki faatoo ka wax lu ñu war dafa ko wax ca kaw ka xotti ay mbubëg xotti yaram yi mel noonu kon du sañ a demati bu fekkee ne xeetu cet googee mbaa yooyu jaxasoo góoru jigéen ak lu ay am na fa ak ñoom koy def xeetu taxuraan ban ci xalama yooyu itam kon du sañ a demati xanaa rek laa ma cay bëgg a teg mooy illat bu fa ndare ndund ma fi nikaaxi ci sëy wa ab sëy dañuy jàpp ne mbugum julit ñee bu ab sëy amee ci lislaam mënees naa tëgg am ndënd ndënd moo xam ne dañ koo foor dañ koo foor ci genn wet mais fooru ñaari wet yëpp genn gi rek lañ foor te it bu am jaasoo góor jigéen wax def kilifa yi def na fi kabare ci ndënd mu mag ma mooy mu ñu foor ñaari wet yëpp dañ koo foor ci wet gi foor ko ci wet gi mooy muy wax kabar am leen sax nee na mooy tabala yi mooy yooyu nga xam ne dañ koy foor ci genn wet gu nekk am nañu ko daganal am nañu ko araamal am nañu ko sib ñoo tax mën a wute nañ ci wala wax lu bu wet rajulun góor bu mu raatin ab jigéen joo xam ne lay sat bi maxaramin déet mu dib araamante mën wu ci moom loolu bokk na ci li araam maanaam góor gi wéetu góor gi wéet ab jigéen joo xam ne araamu ko nga xam ne boo ko dee seet mën na koo takk ci yoon kooku araam na mooy ak moom araam na mooy ak moom te na ko moytu bu baax ndax li wax ne boo weeteeg moom seytaan dafa laan dañ daal di ñetteel wala baas ayit an yaraaxa mu gis ko li xufirin ki ngànt min shahaadatin ci seere xaleexa ci moom aw naxwi dalik wala lu mu roog loolu aw isaa xatabaxa wala neem labat na ko dafa wax ne kooku nga xam ne nag amuñu genn araamante mooy jegewuñ ci mbokk ba askan ba nampaale ba tax mu araam ko la tax mu sañ koo xool rek ngànt lay doon dana bu fekkee da koy seere ci mbir moo xam ne dana aajoo mu xàmmee ko bir ëllëg wala bu fekkee te docteur bu faj wala bu fekkee da ko bëgg a takk soxna yëpp kon dana mën a seet dana mën a xool kanam ay tàngam te bañ a wéet ak moom na boole ci waaye bu dañu sart mu bañ a wéet ak moom yéen boobu du ci am wa amal mu tajjal lépp daal màggat mu jigéen falaxoo ñeel na ko ay yaraa mu gis wacc xaxaa kanamam xalaa kulli xaalin ci mépp mbir maanaam bu dee màggat mi nga xam ne màggat na ba góor ñi amatuñ ci wuute waaye kooku moom jaamu bu góor mën na ko mën naa xool kanamam ak ay tànkam ci anam gu ne dañu sarf rek ngànt tax mbaa dara ma mën na koo xool mën naa xool kanam ak ay tànkam woon xaa def ni tere an nisaaw jigéen ña xan was li shahari walis jokkale kawar maanaam jigéen daa wax jigéen da nga wax jigéen ñoo ko ëpp def waaye góoru ci la maanaam jël geneen kawar def ci kawaram dañ koy aaye te aaye boobu aaye araamal la su ko defee nag nee nañu bu ko defee lu mel ni mbaxana rek sol ko nga xam ne moom jokk ko ci da koy jël rek def ci mën na ko dindiwaat tegaat fi nga xam ne jokkale wu ci moom dagan na loolu na kon ak jàppandal la waxanil wash mi ak walis njocc njocc al washmu mooy ñu xotti yaram ba mu nàcc am loo xam ne ko def niiru la kooku daañu ko def ci kanam gi daañu ko def feneen loolu bokk na ci araam ba itam suñu su ko def ñu ko wuree sax wax ni washmi ak walis njam waaw njam lañ koy wax njam des na ko def ci tuñ daañu ko def ci ci am siiñ daañu ko def itam ci xotti ñu ne kanam gi ba nopp def ci ñuul yooyu ba ñuul yëpp dafa araam loolu itam góor sañu ko jigéen sañu ko jigéen da ko ëpp def rek waaye ñëpp lañ ko aaye wa man labisa ku sol xuffan aw sang sang mooy baat wala bu yàgg bi waaye mooy aw bot aw na alal walaw dàll bada akon mu jëkkee bi yéeme ñi ci ci ndeyjooram wa ida nasaxa ndem bëgg naa sumi bada a mu jëkkee bi chimaali ci càmmoñam maanaam sopp nañ rek boo dee sol mu ne ay dàll wala ay bot wala sax tubéy mais noonu yëpp daal bu dee sol sopp nañ nga njëkk dugal tànkum ndeyjoor bi boo dee sumi nag moom njëkk a sumi tànkum càmmoñ bi wala ba sa ay bi imtixaali ci dàllu xaayiman mbir muy aji taxaw sol ay dàll ba noppi fekk boobu nga taxaw moo nga toog ba noppi loolu sol dàll yi lu ci nekk baax na mën ngaa taxaw sol say dàll mën ngaa toog sol say dàll wayukrahu def na sib almashi dox fii na alin ci dàll waaxidit muy wenn maanaam sol wenn dàll dong dem ak moom nag xam ne tànk bi ci des amatu dàll loolu sib nañ ko watukrahu def na sib attamatiru nataal yi fil asrati ci lal yi wal xibaar bi ak xoba yi wala juturaani ak nuur yi wala xaatami ak jaaro nataal boo xam ne nii lu amul ruu la nga nataal ko rek ci lu mel ne ab lal wala lu mel ne xoba wala nuur wala lu mel ne ab kayit dañ cee wuute am na ñoo xam ne nee nañu araam na lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne sax boo bëggee foto ñu bañ am na ñoo xam ne ñoo wax ne sib rek la dangam defuñ ci jëmm ju taxaw defuñ esthétique xam nañ koo foto ci aw kayit wala ci miir bi wala ci fenn foofu sib lay doon loolu nag moom la sëñ bi ànd moom mu taalif nii jooju wax la wax fekk na moom am ruu ndax dañoo wax ne ku ko lu yonente bi ne woon ñi gën a metti mbugal ci bis penc ci mooy ñu daan foto ndax li ngeen wax ngeen dekkal ko ngeen def ci ruu dañ koy teqale ci ñenn ñi dañuy wax ne moom bu dee jum dina léng maanaam def nga ko statut boo xam ne moom mën naa taxaw moom dong waaye boo xasee def ci miir bi rek wala ci kayit rek wala yooyu moom raamut sib rek lay doon loolu wax nañu bari ci lañu ànd moom itali nii ki yooyu wax la ànd boo foto woon nag wala nga dessiné nag loo xam ne moom am wóor mel ne garab wala oto wala saxaar wala kaaba wala yooyu moom des ko si dara nekk ci wala sa raq mu déet mandarga ma ku dem mandarga waaye nee nañu foto la ci jublu fi fay bu ci malaan min taalika muy bokk ci loolee maanaam buñ nee sib nañ ko photo wala ku dessin dañuy sib mooy boo ko defee foo xam ne kenn du ko yàpp maanaam foo xam ne kenn kenn du ko def dara mel ne nga def ko ci ab muur ni di jàkkaarloog moom wala nga def ko ci aw aw kayite yooyu waaye boo ko defoon ci mbëtt ngay sol baa nga def ko ci sajaar bi nga xam ne ko dëgg ni dama ko dikk wala wala kooku moom des ko si xam ne jàpp ne daal yaa ngi koy doyalal di waaxu dama ko dikk di ko dëgg ko dama ko dikk rek baa nga koy sol rek moom nga xam ne yëf yi ñu doy dal kooku moom def ci fatawa bi des ko si ci wax ñenn ñi wa tarko ko waaye ak bàyyeem bañ kaa def ahsan moo gën a rafet moom itam bañ ko def moo gën baabu ngi ab buntu la fi taxaama ci ñam wa sharaabi ak naan day bëgg a dugg ci mbirum teggee ne lekk ak naan